laal na ko mais mais c'est pas vrai laal na mais mais waxagul li quoi man mais laal na ko kay il reconnaît que laal ndaw si dafa décrire quoi yi ba wane sax wax ben affaire sax bu am nekk ci benn cour xuur droite bi si si testicule droit bi ndaw c'est que lépp le, la décrire non moom kay laal laal na plusieurs fois fi laal na ci suufu douche bi laal na fu nekkee ban dem ba sodomiser ko sax hein bon moom kay loolu du bay moo tax moo tax nee day il refuse de parler il va pas parler mooy vidéo mooy montage vidéo bi ñu doon wax ah gars yi commencé nañu dugg gars yi vidéo yi commencé na daw instant yi avocat Sonko bi maître Clédor Ly lañ jël monté baatam noonu mooy appareil bi ñu jëndee Chine moom lañ jël monté baatam noonu lii ay fausses informations dañ ko montage Clédor li avocat Sonko la baatam lañ dugal si machine bi monté ko noonu di mooy li leen doon wax rek dogoree bi ñu ko dogoree noonu pour def ay photo montage ay audio montage vidéo montage